jigéen balaa baax nangoo dem dagg tey rooti tey togg jox sëriñam balaa tilim fóoti jigéen balaa baax nangoo dem dagg tey rooti tey togg jox sëriñam balaa tilim fóoti lewet nangoo yor njabootu kër ga yaatu ci gan te mokka mokk ba muy neex góor ga muy noote lewet nangoo yor njabootu kër ga yaatu ci gan te mokka mokk ba buy neex góor ga muy noote te neexu làmmeñ wayaf mbir toy yi bay safu xob tey buub ëttam baa këram ga tey nangoo boote te def mbañam rus te làmboo safaf mën muñ tey doomi soxna ju yiw fum sëy ñu yokkoote sawar yaroo yar am xel loo yónni mu daw tey jekki néegam balaa dem fenn tàggoote tey noppi tey muuru tey lamsal jigéb sëriñam tey nëbbu jaambur tey wax ndànk tey yoote rafet rafet jikko tey set ràcc xar kanamam tey soccu tey ree kanam gay mel woote bis bu aayee fonk ak toggam di neexalu bum yenn bum càq bum xooñ bum texem leeti buy tàbbi néeg sëriñam day sol séram yamu am xeeñ lat ko jamu am fab col garoo góoti fum gis sëriñ ba di xay-xay loo ka foon lum wax mu daw tey wuyoo santam wa buy woote fu mu gis sëriñ ba di xay-xayloo ka foona ka bés lum wax mu daw tey wuyoo santam wa buy woote lum am joxub sëriñam lum xam waxub sëriñam lum ñàkk muñ bis bu tooñee daldi tuubaati jigéen ju mel ma wax ŋàññam warot na sal giñ naa ni doomam ja am barke buy tuuti te neexu làmmiñ wayaf mbir yi bay safo xob tey buub ëtëm baa këram ga tey nangoo boote te def mbañam rus te làmboo ker safaf mën muñ tey doomi soxna ju yiw fum sëy ñu yokkooti sawar yaroo yar am xel loo yónni mu daw tey jekki néegam balaa dem fenn tàggoote tey noppi tey muuru tey lamsal jigéb sëriñam tey nëbbu jaambur tey wax ndànk tey yoote rafet rafet jikko tey set ràcc xar kanamam tey soccu tey ree kanam gay mel-mel woote bis bu aayee fonku ak toggam di neexalu bum yenn bum càq bum xooñ bum texem leeti buy tàbbi ni eg sëriñam day sol sëram yamu am xeeñ lat ko jamu am fab col garoo góoti fum gis sëriñ ba di xay-xay ka foona ka bés lum wax mu daw tey wuyoo santam wa buy woote fum gis sëriñ ba di xay-xayloo ka foona ka bés lum wax mu daw tey wuyoo santam wa buy woote lum am joxub sëriñam lum xam waxub sëriñam yàlla bu baax sant yàlla di julli yonent bi eh, di leen xamal ne fii mu toog day xolom sedd na guy ndax tax xolom sedd mooy booy dund ba yàlla jox la gan jóge ca sama boroom say kilifa teew say am di teew ñu joxe turu la cant la ndax doom kenn du ko joxe yàlla koy joxe cant gi nag ñu ngi gisal sëñ Alaaji mi nga xam ne tey moom la ñu xoolee jëmi sëñ Afia di ko ñaana mu yàgg fi lool nag yàgg jiite mbooloo mi mbooloo mi yàgg topp ci ginnaawam ñu di ko ñaanal mu gudd fan lool ba li mu namal liggéey sëñ Tuubaa lépp mu liggéey ko te ñu fekk ko ànd koog moom sëñ bi kenn ne lu ma sant xeeb na ko lu mu la sant xeem na ko yéen waa Mbusoobe bi nag kenn mun leen a fay ndax tax mun leen bàyyi cerno muy sëriñam di baayam di kiiraayam di léppam ñu tuddee ko ko mu jël cerno teg ko foo xam ne daanaka sax doom yi mu jëlal boppam tegu leen fa mboolem ñi di ay doomam teg foofa cerno yéen ñii di ay rakam tey ba ci yow mi nga xamante yaay xalifa bi na sëñ bi jàppoon cerno ngeen jàpp ko na faaw ko njortam te ñun ñi ànd ak moom day xam nañ ci lu baree baree baree bëri kon yéen waa Mbusoobe bi moom cerno amul seen ak pay xanaa da leen bàyyi yàlla yontu bi sëñ Tuubaa mu fayal leen ndax li ngeen ko defal Thierno ko ko xam yéen a tax ku ko fonk yéen a tax cër bu mu amit yéen la ko jëlee waaw kon nag Thierno ak cantam ak yéen moom bu ko doon lim ba déwénee du jeex nee na mi ngi leen sant sant dëkkandoo yëpp nag góor ak jigéen mag ak ndaw bàyyiwul kenn euh, ginnaaw loolu nag muy sant kilifa yi fi teew di ci jiital commandant mi nga xam ne nii moo yor dëkk bi bu ko neexoon yónni ci ay éléments ku ko neex te du tax cer du tee Thierno fonk ko ndax kilifa la. bu teewee ànd ak abstinence ñoom ñaar ñëpp ñu bokk teew te kenn ku ci nekk mat sëkk ndaw kii di xam ne moo topp ci moom bu ñëwoon mu doy sëkk moom mi ka topp ci moom bu ko yónnee mu doy sëkk te ñuy ilif bari na ñu bayi lépp ñëw ngir sa jëmm ji kon Thierno lii ñoo leen loo leen téye woon na nga ko yokk loo leen jàppe woon na nga ko yokk danañ ne koo xam ne nii da ngay wat jub bañ la fale woon dañ lay fàtte waaye jub bañ la fale kenn du ko wat kon yow couleur yi daal seet yu di ay kilifa wax dëgg yàlla mën nañoo ba ngeen ñëw ndax am nañu am nañu ay ndaw am nañu yónni nit nag bu bu naa ndaw lu nekk jëmmi ko koy yónni lay joxe dëgg le waaye bu jëm jëlee yooyu nag moo ëpp doole nag waaw kon Thierno mi ngi leen sant bu baax li leen doolee dénk boppam nag ndax njaboot la njaboot nag boo ko doonee ka yor sa kaaraange nga xamanteeg moom menteeg moom da nga jël si lépp jébal ko ko ndax boo liggéeyee ab safaan du ñàkk yàlla ñaan ñu ko yàlla waaye lépp lu ñëw rek du ci dina xam nu muy réglé ndax am nañu am leneen ñu ngi leen ñaanal service bi ngeen nekk yàlla ngeen ci nekk ba retraité dara bañ leen a fagg dara bañ leen a fang dara bañ leen a gaañ gi jëm yàlla yonte bi sëñ Tuubaa kenn daal sant na leen baax sant na dëkkandoo yi sant nañ ñëpp cant gi tey ay xaritam mi ngi ciy jëlal Baye Cheikh Ndiaye Baye Cheikh Ndiaye bu dee ci xarit yi mi ngi sant Baye Cheikh ak Moustapha Ndiaye bu baax a baax a baax bu dee ci ñi ñooy waa moto bi bu mu xaar ba mu jubóog ñëpp nag daf ci am nag ñoo xam ne dafa xaw a maase ñoom jamono seq ñoom lu bari ma am ñu ma ci xam xam naa ci ñaari abdoulaat ñaari sëñ abdoulaat yoo xam ne nii kenn ku nekk xam naa diggam ak cerno waaw ak sëñ Mourtala mi nga xam ne moom baay moom baay moom baay cerno ak ñu baree baree bare boo leen limee juum waaye cerno daal xam na ne moom ñàkkul baay cerno ndax li tax ñàkkul baay cerno sëñ alaaji mii ko wuutu da koo sëkk yal na fi yàgg lool yal na dund lool bàyyi ca woon lépp yal na ko yàlla jox mu dund ko ndax kilifa yombul wax naa ko bàyyi ca ndox kilifa yombul ndax doon kilifa ñett ña topp ñëpp gëm la kenn du xëccoo yow loolu dafa neex te bu ñu doon ak alaaji mi kon du demee nii kon suñu alaaji Thierno ma ngi la sant bu baax a baax a baax sant mbooleem ñu fi teew góor ak jigéen mag ndaw sant nañu ñëpp gërëm nañu ñëpp ak dëkkandoo yee ñëpp nag bàyyiwul kenn wax nag dafay metti ndax bu ñu la waxee te binduñu ko fi sa xel tool rek fa ngay waxee waaye lu ma wax ci wax ji li ci ëpp génniwut génnut li ci ëpp la ma ci gën a fonk ma ngi ci biir wax ja waaye sant moom da du weesu sant boo xasee sant rek moom mel ni nga njax ah, gasam jinax jinax ku xam jinax boo koy rëbb ba gas benn jinax tëb ñu ne jinax jàngoog ku ko fekkatoon du xam tudd jinax ndax janeen la ñuy wax rek lu jëw janeen lay doon kon janeen rek la kon nu ngi sant bu baax nag. di ñaan yàlla yàlla baal ñu eh, di ñaan yàlla. sëñ Muntaxa yàlla yàggal ko fi te ànd ak wér lool e ki nga xam ne moo ñu fi tax a teew yal na ko yàlla def mag yal na wuyoo turam e yal na ko yàlla doon def kilifa e bu am diine di ñaanal sëñ bi itam nga xam ne tey moo fi moo fi teewal teewal fi ñëpp yal na ko yàlla may fan wu gudd ak wér gi yaram yàlla yàggal ko Eh, cerno mi eh, sëñ bi sànq wax na ko mais moom yoruñu PM parce que yàgg nañoo xamanteeg moom mais ku am kóllëre la eh, bi ñuy xamante boobu maa nga jannatu suñu ubbi police yu jannatu yàlla def ñu xamante mais boobu ba léegi ni meloon noonu la mos a mel mosul am changement kon na mu mel moo tax tey ñu war a mun a jóg sol suñu dàll ñëw ba teewe ko di jarbaat ci commandant bi ñu nekk itam ci police bi eh, mooy sama chef tey waaye gis nga ko fu ñu mën a toog mu jox ma cër yi moom it muy ku baax ku am yite ku am kóllëre eh, di ko ñaanal rek eh, promotion ci liggéeyam bi man moom sant naa ko gërëm naa ko parce que bi muy ñëw moo ne yi ñu dem bu ko neexoon itam mu ne ñuy dem Eh, kon nag eh, Thierno moom mënuñu koo fay dañ koy bàyyee yàlla rek ak sëñ Touba yàlla mi yor fay yàlla na ko yàlla fay eh, yàlla na ko yàlla defal lu kawe njortam kii ñu tudd itam yàlla na toog ba defal ko doomam waaw vraiment sant nañ gërëm nañ bu baax jërë ngeen jëf. mbokk yi fii teew yëpp ñu ngi leen di nuyu bu baax ci turu sunu kilifa di sëñ Alhaji bu Bousso di leen nuyu bu baax te di leen sant bu baax ci seen teewaay. te di leen gërëm di ñaan yàlla jéego yi nga xam ne moom ngeen fi seq bi ngeen di ñëw ak jéego yi nga xam ne moom ngeen di seq ba leen dellu yàlla na ko yàlla def aw yiw te ñu dayee ci ak ngërëmul Serigne Touba mi nga xam ne moo ñu bokk boole. Serigne bi nee na mi ngi leen di nuyu bu baax te di leen di leen sant bu baax di leen gërëm di ñaan yàlla lii ñu fi dajale muy li nga xam ne gan la gu ñëw goo xam ne nii. ci ci diine ci lislaam suñ borom moo def bu gan ñëwee boo amee juróom-ñetti fan mbokk yeeg xarit yeeg wala dajale jox ko aw tur ngir defal ko teraanga kon tur tànk bi ñuy tudd tey yàlla na suñ borom def ko mag def ko magum lislaam tam nekk dëgg-dëgg taalibe Seexul Xadim te suñ borom defal yàggal fi suñu kilif yàggal fi ñëpp bañ dem ba fekke njariñam ca ci barke Xaadimu Rasuul suñ borom mën na ko yàlla ko def sëriñ bi nee na mi ngi leen di sant bu baax kàddu yi fi yëkkati yëpp kàddu yu rafet la sant bu baax Thierno te di gërëm di ko seeral ay mbokkam ak xaritam ne taxawaay bi nga xam ne am na ko ci njaboot gi ci am ko fii ci kër gi ci loo xam ne les yëg la ak lees as leeg yëgut sëriñ bi nee na mi ngi ko ci sant bu baax di ko ci gërëm ndax tàmbali ko tey démb la ko tàmbaloon lépp loo xam ne ne yëg na ko mu yitte lu jëm ci kër gi lum ci man dana ko def bu dee lu ñuy wax la dana ko wax bu dee lu ñuy doxal dana ko wax dana ko dox kon sëriñ bi nee na mi ngi koy seeral ay mbokkam yi fi teew ne ba fi Serigne Thierno jugee ba léegi it lépp lu nekkoon da ko gën a yokk waay wàññiwu kon loolu sëñ bi nee na bu fi ay mbokkam teewee ak i xaritam ak i kilifaam dana seere lu mel noonu ci moom di ko ñaanal yàlla suñ borom mu gën ko dolli kàttan ak wér ba lim liggéey ci kër Serigne Afia Bousso mu def ko ba nim ko defee def ko nu kawe njortam mi ngi sant bu baax ak di soxna maam Faty moom mi nga xam ne kilifa la ci Thierno wax dëgg yàlla ku xam Thierno xam ko diggéem ak soxna si ci taxawaay yu rafet yi mu ko yàgg taxaw naka jekk ba saasu ne ba fii ginnaaw yàlla bu yàlla dogalee soxna si am tu tànk tey ñëw fi ci ndigalam la fi ñëwee ak ci jàpp goo xam ne nii am na yaakaar cerno ba xale bi jox ko kon soxna siñ bi ñu ngi lay siyaare di la sant bu baax di la gërëm di ñaanal suñ borom mu dolli la wér ak kattan ci nga dajee ngërëmul sa maam Seexul Xadim nee daal ñu ngi sant bu baax ci jàpp gi nga jàpp ci njaboot gi rawatina cerno mi ndax nee na geenub golo gudd na waaye lu ci waay laal rek mu xam ko kon ñu ngi la ciy sant bu baax ci ji ngay ci moom ak ci ñu dul moom ci ay taalibe yi ci Sëriñ Tuubaa rek tax nga koy def yàlla ñu ci dajee ngërëmu di sant bu baax di leen gërëm di sant mboolem ñu fi teew ñëpp commandant yow it ngi lay nuyu te di leen sant bu baax dégg na kàddu yu rafet yi nga xam ne wax ngeen ko mi ngi leen di sant bu baax ci seen taxawaay ci dëkk bi waaye seen diggante ak Cerno lépp lu yitte joo xam ne nii aju na foofu ci yéen nee luñ ci yëg rek bu bu ci waxee Thierno wala mu ñëw dox ko defal ngeen ko da def ko nu kawe nam njort kon loolu mi ngi leen ci sant bu baax di leen ñaanal suñ borom mu yokk leen ci grade yi gën a kawe fi ngeen bëgg àgg ca ngeen defal leen tawféex ci liggéey bi ngeen ñu liggéey ngeen dajee ci ngërëmul suñ borom ndax kenn ku nekk la nga yëngatu rek ca nga mën a liggéey la suñ borom kon yàlla leen yàlla defal tawféex ci liggéey bi ca yokk leen ci ca li ngeen ciy liggéey lépp mu daje ak ngërëmul suñ borom ca ma ànd ak tawféex kon daal mi ngi sant xarit yëpp di sant wóllëre yëpp di sant ñëpp xëy na li sëñ bi waxoon ci ay kàddu sax gën naa rafet loolu gën naa jub waaye ci ndigal rek la ñuy dox xëy na bett na waaye lu ci jubut lu ci dëng rek ngeen xam ne ci ñun la waaye sëriñ bi moom lu jub rek la waxoon nee na mi sant cay ñaan ñëpp suñ borom mu defal leen tawféex te yokk leen ay xéewal ci barke xaadim rasul maa ngi jéggulu ñëpp ci kàddu yi ma yëkkati suñ kanamu kilifa yi asalaamaaleykum wa di bu baax di la ndokkeel di la jox sa wàccuwaay di jéggulu nag ci kàddu yi baax baax ndax e, jaaduwut sa kilifa toog nga yëkkati kàddu waaye da fekk ne rek Euh, yóbbante la boo xam ne jot nañ ko léegi bi ñu agsee gannaaw bi ñu tuddee ba noppi muy ay kàddu yoo xam ne Moustapha daf maa woo léegi ko yëkkatil ndax léegi laa jóge Ndakaaru àggaguma sama kër sax fi laa njëkke euh, moom it ñoo waroon a ànd waaye gannaaw bi am ngànt lu ñu lu ñu lu ñu lu ñu lu ñu dab lu xaw a kii ma ne ko nag kon toogal àggale loolu bu ma àggee teew teewal la fa te loolu itam umput umput Thierno kon sëñ bi ñu ngi lay nuyu bu baax di nuyu soxna maam Fati di nuyu sëñ Abdoulaye ak mbokk yi fi sëñ Mourtala ak mbokk yi fi teew yëpp sëñ Abdou Khadir bàyyiwuñ kenn euh, kaddu yi nag kaddu yi cant rek lay jóge ci Moustapha euh, cant nag mënut a cant kon nag bu lu mel ni xewee euh, ngeen di kilifa ceer Cerno teew ay bokkam teew ay wóllëram teew ay am ay am di jàmmam teew a ah, jotaay bu mel ni am kon nag am na ci loo xam ne buñ ko war a seere rek seere ko ngeen ngeen dékku seen nopp ngir mën caa ñaan yàlla nangu ñaan kon Moustapha di wax ni sant na bu baax ci tur waaye nag koo xam diggante Thierno ak Moustapha xam ni du raw lii bu ko amoon ko amoon defal ko ko ci teraanga Moustapha mi ko defalee yëg na ko bu baax a baax a baax a a baax ndax seen diggante yàgg na suñ diggante sax laay wax ndax diggante boo xam ni boo ko doon lim ci ay at yu bari la te mosuloon a werante mosuloon a xuloo mosuloon a séq dara dul aw yiw ak teraanga ak lu baax kon ànd booba yàlla rek a ko lal kon may ñaan ci kàttanu yàlla ak barke sëñ Touba. nga ñaan diggante boobu suñu borom sàmm leen ta aar leen te àgg leen fañ jëm ta dara bañ leen dog di sant soxna maam Fatim ndax it dañuy wax ne bala ñoo gërëm ki togg nañ gërëm ko taxani woon lépp gannaaw yàlla mooma ndax moom mi mii yaakaar naa ni biñ koy biñ koy jox cerno ak soxna si taxawaay bam mu ci am ak yéen a jëm ci am ba lii am tey njaboot sosu ci kon nag moom it danañ ko sant bu baax beral ko ak cantam euh, ñaanal ko suñ borom guddal fanam ba yéen ji nga xam ne mu koy yéene ci lislaam yéene ko ci liggéeyal ko maamam suñu borom defal ko ci lu kawe njortam ndax it soxna su baax la sëñ bi ku am yitte la ku mën a sonn ci yitte doomu aadama la te loolu itam gannaaw yàlla su mag jaxasoo ak moom ci ceerno mi la jaar waaye loolu moom mën naa koo seere ci moom kon a baax a bu baax euh, di euh, bi nga xam ne moo moom lañ doon tudd ñu dund ba fekkee njëriñam ñun ñëpp te yàlla yàlla yàlla mën na ko kon yàlla na ko yàlla def ci barke sëñ Tuubaa Thierno nag moom suñ digg sama diggante moom dama cee matu matu seere ndax suñu diggante yàgg na lool mën naa ni mat na ñaar fukki at wala mu ëpp ko te yàlla dogal itam euh, dara mbiram dara doonu ci sama kumpa mosu cee juyee ak man ci dara lépp loo xam ne ma ngi ciy dugg dana ci diisoo man te xalaat yi ma ko ci joxe dana ko def. njaboo tamit noonu ba barki dembam rek barki demba ci mujj doomam ji mag seex biñ jullee ba noppi rek la ma woo di di di wax ay cant yu bare bare bari ci sama jëmm ji ak sëñ Mourtala mi ak ñi ñu seqal Ceerno ak bokk yëpp ci ay taxawaay ak i ak i ak i ak i ak i ak i yéene ak i suñu diggante moom ma ne ko loolu moom daanaka jëru ko ndax dafay loo xam ne dafa war rek ndax nit bu fekkee buñ ko tuddee tudd la ku la gis ko laaj la ko kon jàppal ni kookaa fa ne te sëñ Fallou wax ni ay nit di seen ànd bu ba koo ca gis sa xel ko ca des sax xamal ni kookaa fa am na suñu suñu diggante moom muy nit ku baax moom it Ceerno di nit ku laabir di nit ku am yërmande di nit ku mën a sonn ci soxlay doomu aadama it nag loolu it mën naa ci seere fi na tey ji yitte jum newoon tey ji nga nga wax ko sa yitte dana bàyyi lam nekkoon moom doxalee sa yitte ba loola féete te du ca du ca du ca séntu dara du ca yaakaar dara loolu nag melaw nit ku baax la jikko ju baax it moom ko ko mooy tax nga nga mën a doxee noonu kon euh, nga ñaanal ko bu baax moom suñu borom dolli ko wér sàmm ko te sàmm njabootam ndax jëlee na naa moom waaye fi na ba ci ay soxnaam ak i doomam ñoom ñëpp kilifa lañ ma def ci wàll yëpp seen biir seen biti lépp lu ñu dox wala ñu koy nas danañ ci diglu samay xalaat te loolu bu la neexoo de du leen ca fekk waaye xam kuñ xam sama diggante ak seen baay ak fu ma teg ak bàyyi xel gu ma bàyyi xel dana tax seen mbir dara du nekk sama kumpa loolu sant naa ko ci bu baax a baax a baax a baax kon nag ñu ngi ñaan ci kattanu yàlla xam naa ne jotaay bi yàgg na yitte yi bari na waaye nag euh, ak cant rek la te sant moom mënut a weesu cant euh, li nga xam ne xam nañ ko ci moom ci ay jikkook yi melokaan ko doxin buñ ko doon wax fii ba subay du jeex waaye nag naan lu du doy loo ci am mu doy lii sëñ Abdou Mbow mee waxit ci sëñ Mourtala moom sëñ maa ngi la koy fàttaliwaat baax ku taxawu Cerno la ku ko féete fu ne la mboolem jàpp gum ko jàppoon ci nekkuk sëñ Cerno dafa mel gannaaw sëñ Cerno da koo yokk loolu moom ñu ngi ci dolli ay seer bu baax taxawaayam ci Cerno lépp lu des ci wàllu googu rek ci Thierno la des waaye desewut desewut desewut ci moom taxawu na ko jàppale na ko kon moom it nga ñaanal ko suñu borom def ko muy mag baax te mosul ko ci ndog yeeg gàllankoor yi ñu daal suñu xool sedd a a baax cant nag mënut a weesu cant waaye Moustapha ni woon rek nañ ko yëkkatil ay kaddu cant ci ci la ca des nag moom ñaan ci loxol yàlla la nag loxol yàlla jot na fu ne nga ñaan suñu borom faj aajo yëpp rek barke Sëñ Tuubaa mboolem kilifa yi àdduna bi yi nga xam ne teew na fii di ay wëlëreem ñoom ngi rafetlu bu baax a baax a baax seen seen seen taxawaay ndax ku ne xam na ne jamono xat na yitte yi bari na kon nag ku bàyyi sa yitte nag ñëw ci lu mel nii ah xam nañ xam bàyyi nga xel ka ngay seeti kon nag moom itam ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di sant bokk yëpp di sant wëllër yëpp di sant am di jàmm yëpp ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullah bu baax wax ah. tuutal laaj ci diggante wu sëñ Thierno bi mu wàcc ci liggéey ñaar ñoo xam ne ñëwuñu ci woon Thierno da leen a bàyyi. li may wax nag xam nga nit ki bu fekkee na ngay wax te li nga wax wóor la loolu dëgg la da ci bëgg parce que seedoo moo ko en tant que protocole jaay wala may wax loo xam ne nekkul parce que juróom fukki at mi la ñuy am. sans presse ba léegi ab taawam ba ñu la ko tudd. taw boo ko am na fanweer ak ñett kon jigéen bu dee say ci kër bëgg say ba di neex nay muñ sax ci ndigal tey tontu tontu lu neex tey fuuta kay togga kay ree tey waxam bañ a baatam di jëm suuf te bum jekki tawat ak a jeex tey xay di xeeñ te nangoo ñàkki yëfam te sawar te bàyyi maa ni ku naa man maa ni say ba du neex tey buub këram ba mu set buub kër sëriñ ba mu set raxas ndabam ba mu set muy daw xuloo ak i xeex tey jóg ci njël walter duy mbàndam yëbët soga set mu gaaw tolaax ràcc fam nag ay daxam ni ca tey muuru tey bañ tey sàmm sàmm gu wér tey jag bi tànkam ca kër gee kon sayam dana neex tey muuru tey bañ tey sàmm sàmm gu wér tey jàppe tànkam ca kër gee kon sayam dana neex tey gàttalu làmmeñam tey wanna wanni meram kër la te koy muñ mu xëy ni mariix sëykat yi sëy baa ngi nii kuy sëy te doo sëye nii loo am ëllëg na doy loo déggiit na la neex sëykat yi sëy baa ngi nii kuy sëy te doo sëye nii loo am ëllëg na la doy loo déggit na la jigéen balaa baax nangoo dem dagga tey rooti tey toggu jox sëriñam balaa tilim fóoti jigéen balaa baax nangoo dem dagga tey rooti tey toggu jox sëriñam balaa tilim fóoti lewet nangoo yor njabootu kër yaatu ci gan tey mokka mokku ba buy neex góor ga muy noote te neexu lammeñ wayaf mbir bay safu xob tey buub ëttam ba këram ga tey nangoo boote te def mbañam rus te lamboo ker safar mën a muñ tey doomi soxna ji yiw fum say ñu yokkooti te def mbañam ruste lamboo ker safaf mën a muñ tey doomi soxna ju yiw fum sëriñu yokkooti sawar yaroo yaru am xel loo ko mu daw tey jekki nii gëm balaa dem fenn tàggooti tey noppi tey muuru tey lamsal jigéb sëriñam tey na bu jaambur ña tey wax ndànk tey yoote rafet rafet ji tey set ràcc xar kanamam tey soccu tey ree kanam gay mel woote bis bu ayee fonk ak toggam di neexalu ñam bum yann bum càq bum xooñ bum texem leeti buy tàbbi neeg sëriñam day sol séram yamu am xeeñ lat ko jamu am fab col garu góoti fu mu gis sëriñ ba di xay-xay loo ka foo lum wax mu daw tey wuyoo santam wa buy woote lum am joxub sëriñam lum xam waxub sëriñam lum am joxub sëriñam lum xam waxub sëriñam tey gaaw a tuub bis bu tooñee dal di tuubaati lum am joxub sëriñam lum xam waxub sëriñam tey gaaw a tuub bis bu tooñee dal di tuubaati jigéen ju mel nii ma wax ŋañam warat na asal giñ naa doomam ja dayam barke buy tooti jigéen ju nii ma wax ŋañam warat na asal giñ naa doomam ja am barke buy tuuti sëykat yi sëy baa nii kuy sëy te doo nii loo am ëllëg na doy loo déggit na la neex sëykat yi sëy baa nii kuy sëy te doo sëyee nii loo am ëllëg na la doy loo déggit na la neex jigéen balaa baax nangoo dem dagg tey rooti tey togg jox sëriñam balaa tilim fóoti jigéen balaa baax nangoo dem dagg tey rooti tey togg jox sëriñam balaa tilim fóoti lewet nangoo yor njabootu kër ga yaatu ci gan tey mokka mokk ba neex góor ga muy noote te neexu làmmeñ wayaf mbir toy yi safu xob tey bu suñu yaay ju ñu yiir ju ñu yërëm ju ñu toppatoo lool lool lool lool lool fayam képp koo xam ne nii nii rek nañ ñu ko ñaanalal suñu borom yàggal ko fi wéral bi cëram ba li mu bëgg a liggéey ca yoonu xaari war a sël lépp suñu ko ku ñu jàppale la ku ñu yërëm la ku ñu yiir la moom suñu yaay bi amuñu kenn ku ñu ñaan waa jëkkër la rek. ah jëkkër la rek. bàyyi sa xamantaaw bi nga ko def. non dama yàlla dafa dikk rek téye ko boppam moom la ko boppam. tuddee ko doom. bàyyi Cheikh ne suba ba jàngoor rek ceeb la. bu dee du neex

lu set xol la daal loolu la mën a ñëwante doomu aadama mën a topp doomu aadama jërëjëf doomu aadama ako la nit gisee téye la ngir jëm leen a ko lépp ci mujj su ma xewlee waa kër ceeb ciy ñi ngi ñëw barki démb ba bàyyi laaj keroog ko sa bu bàyyi sax sama taal mi ñu bay si biir ni ca kër ga futteeku yore xew ba jeex ñoom ñëpp ñëpp di si ngërëm liggéey boobu ba liggéey ba jeex ba ma yëgi leen ñu dem ceeb bàyyi moom kon moom mi moom laay ñaan ndax àndu ndeeg bu neexee danga danga des bu waaye ci bu si ndam neex rek waaye yaa fool ma lépp xam nga yéen am ko bokk ci bànq si ak sama bopp yàlla moom ma faa ma saako bi. waaye yàlla yëngu sëñ Fall bu amee dara sëñ Fall. yàlla yëkkatu ba njabootam gi. ma faa de ma faa de. lu mu ñu ci bare yàlla ko bokk ci yàlla. moo gën ci man bàyyi ci digg kii bi xoolal am jigéen balaa baax nangoo dem dagg tey rooti tey togg jox sëriñam balaa tilim jigéen balaa baax nangoo dem dagg tey rooti tey togg jox sëriñam balaa tilim fóoti lewet nangoo yor njabootu kër ga yaatu ci gan te mokka mokk ba muy neex góor ga muy noote lewet nangoo yor njabootu ay bànnal naa la macha allah. dikk leen seetaan. jabar jabar dikk leen seetaan. Yo sis doo boole te doo xool ba tub jëkkër borom supukaay ne borom dama daa doo siis doo bonde toy yi bay safo xob tey buub ëttam baa këram ga tey nangoo boote te def mbañam rus te làmboo ker safaf mën muñ tey doomi soxna ju yiw fum sëy ñu yokkoote sawar yaroo yar am xel loo yónni mu daw tey jekki néegam balaa dem fenn tàggoote tey noppi tey muuru tey lamsal jigéb sëriñam tey nëbbu jaambur ña tey wax ndànk tey yoote rafet rafet jikko tey set ràcc xar kanamam tey soccu tey ree kanam gay mel yu woote bis bu aayee fonk ak toggam di neexalu ñam bum yenn bum càq bum xooñ bum texem leeti buy tàbbi néeg sëriñam day sol sëram yamu am xeeñ lat ko jamu am fab col garoo góoti fum gis sëriñ ba di xay-xay loo kafoon aka bés lum wax mu daw tey wuyoo santam wa buy woote fum gis sëriñ ba di xay-xay loo kafoon aka bés